mais ak lu mu mën a demee àdduna ñu nekk ay africain surtout ñun ñii di Gambie ak Sénégal dindi ay sénégambien suñuy njiit yi suñu mateek suñu matulee. Mhm. ñun doomu askan wi dëkk ci Sénégal bi dañu am ay responsabilités yoo xam ne dañ ko war a xam te ràññee ko une bonne fois pour toutes. Mhm. koo xamee ni bu coono amee ci yow. ci sa nawle ngay daw làqatu ji. Mhm. bu jafe-jafe amee de côté bale ngeen bokk jafe-jafe gi bu bànneex amee ngeen bokk lii dafay wane ni rek ñaari wiiw yoo xamee ni. plus que yeneen réew yi seen intérêt yi ak seen cosaan ak seen histoire ak seen politique ak lépp daf leen dajale. Mhm. ba tey jii moo tax lii nga xamee ni Sénégal mi ngi koy def ci ndigalu Nations Unies dëppoo seeg CDAO man day maa ngi koy rafetlu. di ñaan yàlla suñu armée nationale ak armée yi ànd ak moom yàlla defal leen jàmm. amiin ñu dem rétablir la légalité constitutionnelle ndax Sénégal dawul dugg ci réewu jaamur. Mhm. daf ko def. ci kaw ay responsabilités am def ko aussi ci kaw ay obligations am. Mhm. ndax lu xew Gambie ci biir Sénégal yi la xew ndax lépp loo xamee ni jafe-jafe la ci biir Gambie intéressé wul kenn ci àddina kuddul Sénégal. Mhm. ndax ñu ñaar ñëpp ay réew yu ñàkk lañu te defe naa ni gumba war na tal leneen lu dul tëddi teen. dëgg la dañu am ay perspectives de développement yu ñu bokk. Mhm. am ay initiatives yu am solo yu ñu bokk. sant yi benn la. histoire yu benn la xeet yu benn la kon nag. dëgg-dëgg lii Sénégal def lu am solo la waaye na nga ciy jàng ni na ci jàng ni. Mhm. ëllëg lu ñu mënti am dañ ko war a préparer tey jii. Mhm. amuñu benn intérêt. si mhm. kii dem gauche kii dem droite. amuñu benn intérêt ci kenn bi liggéey loo xam ne day nasaxal sa nawle lii wane na ni bu jafe-jafe amee doomu ndey la ñuy wax ak doomu bàyyi kon nag nañu boole naan wala boole tuur en tout cas daal man day lii moom

ñu xam ni benn lañu du jàggee ne rek bu jafe-jafe amee dañu war a taxaw bu jàmm amee ku nekk tasaaroo. boobu tamit du responsabilité. Mm-hmm, mm-hmm. waaw dëgg la am na solo aussi si suñuy réew yi dañ ko tàmbalee si suñu njiit yi. Mm-hmm. ñu jéem a jàngal doomu aadama yi lan mooy légalité constitutionnelle. ak mooy lan mooy respect li nga xamee ne mooy bëgg-bëgg doomu aadama yi. dëgg la parce ku fi politique pour askan wi moo tax ngay politique. nit nag doo di politique ngir dara. ba yàlla jox la ko nit ñooñu nga wëlbati ko yeew leen.

ñu def koy sacerdoce ba fi woy yu rafet ndax yaay jàmmee boo ko tuddee naam ak xëy na ñaawtee fi waaye am na ñu gis ni aussi liggéeyal na bi loolu tey ji bu bu toogee ba tey xëy na ci wàllu ko la mu fa jot def nay jéego xanaa mu bako fi sax balaa moo dem waaye doo doo demee ci anam yoo xamante ne daanaka on ne retiendra que li négatif c'est valable pour tous les présidents africains ku ci ne daal sa sa sa yéene ak sa kàttan guddeeg bëccëg da nga ko war a sës rek ci lan nga fiy bàyyi ne woy parce que di nga di nga am ay descendance ci wax dëgg yàlla ku sañoon nag euh, doo def fu ñu tuddee sa maam ngay daw di làqu